tamit di rafetlu ànd bi Equivox TV mbokk téléspectateurs yi loo xam ne rek jóge na ci làmb bi maanaam bi dinañ toog fii ci plateau bi dal di leen ko faram fàccal waaye toujours rek ma ciy ànd ak euh, sama góor gu ñaaw bii di Babacar hmm, nuyu la Diouf maa ngi lay Babacar dama la namoon ñaata fan ak nii nawuma toog ci plateau bi waaw yàgg na suma bi est-ce que quatre jours xaw yàgg na ah, amoon ma toogee léegi gisuma la plateau bi waaw non waaw xam nga waaw xam nga rek dërëm ak dërëm. dërëm ak dërëm. moo <laughs> mën a am ma la gisul di la xalaat boo ma gisul di ma xalaat. déggal loolu. mais nag. foor euh, na gomis defal naa la feet gënum tuddati bari ci démb Saint-Valentin ja gisuma la dégguma wax nga dëgg ci loo nekkoon tamit. ah xanaa xaar la ba nga ñëw rek. ah, ah. waaw maa ngi nii. cadeau bi kon ko fii nag Babacar. amul muskile. Eh? amul muskile day ñëw di nga ko gérer. loolu kay yàgg nuyoo la gis téléspectateur <laughs> téléspectateur yi ñu dem seetaan li nga xam ne rek moo di revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 16 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglekaay bi di suñu lamb nag moom tey que mu xëy dalal ci xëtam mu njëkk mooy que nga xam ne moo di Bombardier ki nga xam ne dégg na roi des arènes ñaari yoon nekk fa nga xam ne moo di ca mbuur géej yëglikaay bi nag dafa xëy tey wan ñu ko ci foto woo xam ne daal ragloo raglu la mu nga joxoñ loxo ba wala boog mu nga joxoñ baaram ba xulli bët ya yëglikaay ba nag nee na Bombardier daal fi mu nekk nii day li koy xaar ab liggéey bu rëy rëy la maanaam daal ki nga xam ne ni daal moo di Bombardier daal défi bi koy xaar bokk na ci ka nga xam ne moo di adversaire yi mu war a jàmmaar lool muy Balla gay numéro 2 delloo ko place am maanaam daal dal di koy tooglaat place am bokk na ci mbir yoo xam ne mu ngi xaar ka nga xam ne moo di Bombardier sunu làmb xëy tay ñëw wax nu lu mel ne ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb mu mel ni ki nag muy Bombardier wala muy Balla Gaye numéro 2 wala muy ki nga xam ne moo di guy gi wala Siteu ba ti ba ki nga xam ne moo di caat yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci mbir yooyu nga xam ne daal ña leen yoroon doon leen tàggat dañoo génn àddina moo tax yëglikaay bi xëy tey nag sampab laaj daal di day ndax nag daa mel ni kon seen combat ñu jëm moom daa mel ni day est-ce que duñ ko jéem a gagner par force ngir lan ngir fàttali ko ña nga xam ne ñoo leen daan tàggat wala ñu dugal leen ci lamb te yàlla def ñu wujju seen borom sunu lamb xëy tey ñëw sampal ñu boobu laaj leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy ka nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moo di bira ak fa nga xam ne wala boog lamb ji nga xam ne jiite na ko mu mel ni ki bi ñëw na tey jàpp datub le 9 novembre ba le 16 février bi nekk tey ci 2021 bi di 100 jours maanaam téeméeri fan maanaam ñetti fukki fan yëglikaay bi ñëw na tey ci itam fan yooyu nga xam ne moom la fi biraa def ak lam nga xam ne jot na ko fee def muy ay mbir yoo xam ne daal yu rëy rëy la bokk na ci la nga xam ne daal moo di wàññi la nga xam ne moo di prix wu la nga xam ne moo di licence yi nga xam ne ni dañ koy dagg ak itam ña nga xam ne nii ñoo doon arbitre ya nga xam ne dañ leen rajo woon maanaam dàq leen mu dugalaat leen ci biir làmb ji joxaat leen seen place yëglikaay baa xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom palaasam la bëgg a jëlaat moo tax tey mu xëy ñëw di wax ci yëglikaay bi di sunu làmb muy Léopold André Sarr ba nga xam ne mu nga ci écrit Mbour Bombardier moom daal nee na dafa reculer pour nag fexe jëm a tëbaat maanaam daal deltu ginnaaw ngir bu ñëwaatee tëbin wa muy tëb bi yoon nekk tëbin wu baax a baax a baax loolu mooy waxu la nga ka nga xam ne moo di Léopold André Sarr ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb keneen koo xam ne nii moom mu nga denc boppam maanaam confiné wu fa nga xam ne moo di ca Gàmbi mooy Double Tyson la muy préparé nag mooy diggante ma xoyantaan te itam nag da caa bëgg ndam lu leer nañ moo tax daal moom fi mu nekk ni moom Double Tyson moom mu nga nëb boppam di liggéey liggéey bu méttee méttee métti yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey ñëw wax nu lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne ni moom bis boo xam ne da caa jaaroon mu metti lool muy muy Lac Rose bu Fass yëglikaay bi xëy na tey ñëw seq moom waxtaan ci rubrique Leewtoo la mu xam ne nag lenn la nee na bi ko gën a marqué daal ci dundam moom mooy digganteem ak ka nga xam ne moom moo di Modou Anta nga xam ne moom moo nekk fa nga xam ne moo di ca Thiès Lagros moo xëy tey gise noonu dal di ko wax bu ñu continuer ba tey ci yëglikaay bi di sunu làmb nag moom dañuy dem ca tuus mu mel ni ki nag bu ñu demee ca tuus moom ka nga xam ne nii moo di Bombardier mën fa ubbee woon daa mel ni moom nag fi mu nekk nii day seen na ab combat boo xam ne daal lu jëm ci wàllum la moo ka nga xam ne moom mooy pour Ziane daal la war a jàmmaar loon la 20 mars yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko mbër Bombardier daal loolu la signé keneen koo xam ne tamit mu ngay préparé combat mu ngi ka nga xam ne moo di rëg-rëg ba cay ci tuusi yëglikaay ba ñëw na tey wax nu ko moo busa saa daal la war a jàmmaar lool moom tamit yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lool moo tax yëglikaay ba xam ne ne daal kii di rëg-rëg moom mu nga ca camp Leclerc di faray boppam ci wàllum entraînement yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko ka nga xam ne tamit doomi caaro yi la dëkk ak rëg-rëg yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ca tuusi muy sàmbay borom sam production yëglikaay bi daal ne na datu la 4 avril ba daal sàmbay téena ko keneen koo xam ne ni moom ab promoteur la yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci moom muy idaali ñi ngi ci tuusi moom nag yëglikaay bi xam nañu ne daal moom jël na avion dal di wutali réewum fa nga xam ne moo di Turquie maanaam daal dem na kon Istanbul yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu bu buñ fa jógee dem record record moom la mu xëy tey xamal ñu ko daal bokk na ci la nga xam ne nii moom moo di ubbiteel saison bi nga xam ne naka la see bi di def nag maanaam pour ubbi saison bi ci jamono joo xam ne nii ñu ngi ci jamonoy coronavirus ak couvre-feu yu mel ni ki noonu yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu loo ci mën a dégg daal moo xam couvre-feu wala muy covid 19 ba lu mu ci mën a doon daal nu ngi ñaan yàlla mu jeex ba làmb ji mën a ubbi ndax fi mu nekk nii nag gomis loo ci mën di dégg moom gars yi namm nañu mbër yi ci biir géew bi loolu waral gaa ñi fi mu nekk nii des fois nga leen di séen ñuy wutali mi fa nga xam ne moo di Gambia nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw ak yéen ci journal suñu làmb Babacar ñu daal di xëy ak ñun tey ci xëtam bu njëkk ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne rek moo di Bombardier combat bi nekk defi pour Bombardier ngir rek mu teg Balla Gaye 2 fi nga xam ne moo di place am. waaw loolu day défi la parce que defe naa ne Balla Gaye 2 ak Bombardier moom li tax défi am ci mooy. dañoo am fu ñu jaaroon yàlla dogal Bombardier am ndam. Mhm. daal di àddina di dox di dox ba tey suñu papa Gaston dañ tëggaat combat bi. ñu war a bëriwaat muy ñaareelu yoon defe naa nag kon defe naa loolu rek dèjà défi la ci ñaari mbër yoo xam ne boo xoolee seen combat yu mujj bokkul nuñ ko dundee parce que Bombardier combat bu mujj da ko ñàkk moo ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène mhm. Balla Gaye numéro 2 combat mi mujj da ko gagné mhm. bi ci biñ ci mujjee gis mooy diggante mag Modou Lo kon defe naa loolu rek de bés la defi la sans compter nag ak la ca laxasu yëpp mhm. tey ñoom ñaar ku ne jot na dégg li ñu waxante ci ay kàddu ndax dégg naa leen micro ku am na loo wax sa morom ci ay wéroo kon boo ma jënee na ba ma déggee moom ci làmmiñam mu ne wéru kon ca laa ko tontoo mm. balla ne nag moom bu dee ay loxo gënul ma koo jotle dax xumaa bëri mm. kon moo lay won ne combat ba daal mm. xaw ma ba ma jënee teg balla place xaw ma bala dina relevé défi xaw nu muy demee waaye loo ci mën a dégg du doon ñu ngay tëkkuwante daal waaw non du yomb sàppet du ko def du mënta nekk parce que ñoom ñaar ñëpp dañ di ñaari dañ yori jikkoy gaynde ñoom ñaar ay gaynde la waaw kenn xamu ci dellu ginnaaw loolu moo tax combat bi foofu ba tey rek ñu des ci ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 moom nag ak ki nga xam ne moo di Gouye Gui ak Siteu ñi nga xam ne ñoo nekkoon seen i ginnaaw ñu ci bëri dëddu mhm. voilà mu nekk loo xam ne nag ay coach yoo xam ne dañ leen doon jàppale bu baax ndax nag dinañ nekkoon wala ñi nga xam ne dëddu nañ leen dinañ def benn impact boo xam ne rek day négatif ci seen i waaw maanaam su ma déggee mooy que ni jéem a gañ a xëy na seen ngir mhm. jéem a honoré ñooñu fii nga xam ne ñoo leen tàggat mhm. parce que bu dee Balla Gaye 2 la ku ko xam-xam ne Balla Gaye Ndour moo ko formé maanaam père Balla Gaye loolu la nañ ci seen bët duppee ko boppam defe naa loolu itam jigadiwu ko yàlla daf mu tàggat ko ba yóbbu ko ci sommet wu làmb ji yàlla daf mu wuyu ji borom yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana guy gi tamit kazalika naka noonu ku ko xam-xam ko moor faram mhm. mu formé ko ba yóbbu ko tamit fi nga xam ne tey yaakaar mbir mu ne bëgg nga fa yegg yàlla def mu wuyu ji boromam ka nga xam ne moo di sëtta tamit ak père Aline Diop noonu la demee Bombardier ak magam Pape Dia Thiat ak Boy Bambara yooyu yëpp am na fi muy ay mbir yoo xam ne ah lu metti la nag mhm. waaye loo a dégg loolu lépp suñu borom bi mooy ñëw ci dogalam rek mhm. ah ñoom nag xam naa ne ñoom ñoo ñu lim noonu te ñu ñàkk seen entraîneurs yooyu wala seen formateur yooyu mm-hmm. lépp lu ñu mën ci seen combat yi di ñëw dinañ ko def pour jéem a gagner pour honorer ñooñu waaye loolu moom xam naa du mën a ñàkk waaye nag ndax ndax waaye nag da di mbir mi ñaar a koy def mm-hmm. ndax ku nekk ci ñoom ñooñu ñu limb da am koo ko seqal te ka nga ko seqal itam ndam la bëgg ca combat ba waaye loo ci mën a dégg daal ñu ngi ñaan yàlla rek combat yooyu yëpp mm-hmm. ñu fekk yëpp te tal ko ñu bëree ko que le meilleur rek amiin xam nga nag liñ naan feccum liir bu neexee yaa jaa jàpp ca mbagg te ñun dañoo nekkoon ay wéeruwaay wéttal yu wóor a wóor sax wallaay la si ndax xam nga ne boo xoolee foto bi gis père Balla Gaye Ndour mii ak mhm. Balla Gaye Ndour ni ñuy waxtaane nga gisoon Mor Faram ak Sita ak Guy gi mhm. gis Sita ak Père Aline Diop gis Caat ak booy Bambara ah non loolu da doon daw yaram gis Bomba Diop Pape mais nag c'est la vie yàlla moom mooy borom kulu nafsin saayxatin mawdin rek borom kun fa yàqu te muy dëgg bu ñu jógee foofu ñu dem seet ki nga xam ne moo di Bira Bira Sène moom nag bañ koo falee rek boobaak léegi ca fële CNG bu Kaolack CNG la mm, non waaw bu Kaolack bu bu Sénégal làmb bi Sénégal. bu Sénégal voilà bu Sénégal dama koy jaawale ak. CRC <laughs> la. moom nag mu daal di def ay actes yoo xam ne rek dafa am importance ci euh, baisse des prix bu licence bi ak ñi nga xam ne rek ñoo di euh, arbitre nga xam ne leen rajee woon mu intégré waat leen. dugalaat leen ci biir maanaam boo yëglekaay bi dafa kal dafa wàññi ba mu fi toogee léegi. mu toll ci téeméeri fan maanaam 100 jours. yaa ngi dégg ah mu mel ne kon jël na fi ay décisions yoo xam ne ah ñu bëri ci monde lam rafetlu nañ ko bokk nañ ci licence yi nga xam ne dañ ko doon jàmbat seeraay beeg yooyu mu wàññi ko moo xam bu mbër bu promoteur ak yeneen ak yeneen bu se yemu ca tamit arbitre yi nga xam ne seen dàq ñëpp dañ jàppoon ne lu anormal la injustice la bi mu ñëwaatee tamit ak équipe bu bees indiwaat na leen dugal leen waaw loolu moo lay wan ne kon moom tamit posé nay ne daal ñu ngi koy ñaanal yàlla ak ak équipe am moom Bira na xam ne moo di xoyantaan kii di double Tyson moom ngi préparé ay mbiram fële Gambie waaw loolu day defe naa ne combat bu nar a neex la combat bu nar a metti ñaar yu yàgg tëkkoonte xam naa ne daal combat boobu combat du ko nar a gën a rëy xoyantaan ak double Tyson mhm. moo tax double moo tax ca Gambie di préparé taxaw Koyantaan ku ko xam-xam ne mu ngi fa ca biir Gàmbi kon moo lay wan ne combat boobu daal <laughs> euh, derbi bu méttee métti la nar a doon te muy dëgg ba tey rek ñu des ci ki nga xam ne rek moo di euh, euh, nu mu tuddati sax Léopold André moom nag mu nga mu nga mu nga fa ca kii dafa jëloon recul moom. Mhm. dafa jëloon recul ñu gëj koo gis torop nee na daal dafa nëbbatu woon pour euh, soigner wu maanaam euh, faju pour faju pour mën a ñëwaat. pour mën waaw ah waaw yàlla na wér ak jàmm rek bu dee daa wér di wër que tamit wax euh, faju wér moom faju rek mooy garabam. yàlla na wér ak jàmm bu ñëwaat parce que moom itam mbër la boo xam ne defe naa ne lit simple bi xam nañ ko ci bu baax a baax mu doon ci wane boppam moom Léopold André Sarr ay at a ngi nag gisuñu ko. Mhm. xëy na kon loolu ci loolu mu nekkoon moo mu toogoon daal

tëggal seen combat waaw signé nañ seen combat ni ki démb ñu mhm. war ko jongantel mois de mars le 20 su ma juumu ne ah ñuy ñaanal Bombardier ja rek nekk doomu di Bouchacha yàlla na ko ci yàlla may ndam moom rëg rëg parce que tamit ñoom ñëpp li ma la rek couleur réew mi la ñuy défendre ku ci nekk ngay jonganteel dëkkul Sénégal mhm. te ñun nag wax dëgg yàlla takk drapeau bi moom génn bitim réew di jongante gi duñ mën a def lenn lu dul soutenir la bu baax a baax a baax muy rëg rek muy bombar ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci MMA bi di ay doomu Sénégal te muy dëgg yal nañu indi na woon neex waaw incha allah noonu lay dem incha ñu ñëw nga xam ne moo di Sambaye Fall moom nag fi jàpp na rek datu 4 avril bi jàpp ne datu 4 avril bu waxee nag moom combat général bu Fass ak kulifay mhm. numéro 2 bu Thiaroye moom la ci a tëgg ñu ñaan yàlla rek yàlla na def daal ñu yegg ci loolu ak jàmm daal dëgg la mhm. kii di yi daal ñu ngi tamit moo dafa mel ni dafa dem fête ci Istanbul de. Turquie bu ñu nee Istanbul mooy Turquie xam naa daa dem pour ay affaire ak yooyu Idaale ñi ngi borom ñi ngi production ñu koy nuyu di ko ziar. Mhm. <laughs> waaye am na solo loolu. te muy dëgg bu ñu jógee foofu rek ñu dem ci journal bi nga xam ne rek moo di record xam ne moo di couvre-feu bi bu affaire yi commencé. waaw loolu day fi mu nekk nii moom dafa naa ne balaa ñu see mën a xam lu leer il faut ñu ubbi saison ba pare. Mhm. suñ ah, la ñuy jël. pour mën a def li nga xam ne mooy làmb ji parce que làmb moom ak ku ne xam ne ne des ci ni ñu ko doon gisee des fois làmb dem ba vingt et une heures des fois sax mu romb ko ça dépend ci événement yi ak bés yëpp mel ni ki noonu loolu nag su amee defe naan ak yenn événement yi ah bu keroogee des na xool naka la ñu a def balaa heure couvre-feu di commencé ñu mën a bëree làmb yi ba pare mais loolu ci mën a dégg daal moom ñun moom li ñu ñaan mooy nañu ubbi sa làmb ji man daal loolu laay ñaan man. man baax yow yow da ngaa du même du namm naa micro bi waaye namm naa tamit gis mbëri ci biir géew bi. dafa neex am lool suñu cosaan la. taakusaanu dimanche daa bokk ci lii dafa bokk ci lii li li li liy neexal Sénégal. làmb suñu cosaan dafa bokk ci li nga xam ne ay mbir la yoo xam ne coow yi ngay dëgg ci dëkk bi nii jàppal bàyyil ji xuloo bi werante bi politique bi fii. xol yee neexul rek bu yi bu yan événement yi amoon. bu ñu la doon tey Modou Lo Balla Gaye Ama Baldé Modou Lo Siteu nangam sangam guy gi fële <laughs> ñoom booy ñaa tafaati ay bombar ji itam ay lag dëgg rëma seen riir buy fay loolu ay voilà loolu loolu loolu coow ah, loolu loolu dara da koo fay <laughs> te muy dëgg Babacar xibaar yi jaar fa ndar képp lay tàggatoo xanaa di sant yàlla rek di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jéggulu rek internet yi waaw di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom ñëpp fu ñu mën a nekk rek fu ci waaye nekk di ñu bégg di ñu tiitaroo rek mhm. ñu ngi lay ñaanal jàmm di leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax amee yow itam di leen nuyu di nuyu say mbokk rawatina waa Gaye Ndiaye yëpp di leen di nuyu tamit sama waa dëkk ak yaay di leen ñaanal bu baax a baax baax di wax tey nag happy birthday to you mm. ah suma xarit suma jigéen sama rak Aram Ndiaye maa ngi koy wax happy birthday to you dundal lu bari boroom la 16 février hmm. yàlla na sa jàmm yàgg yàlla defal la gudd fa nag wér gu yaram barkeel sa njaboot di ko nuyu di doomu bawol dëkk fële ca tàllañ di suma xaritu xol di suma lépp daal happy birthday to you soxna aram amiin soxna aram ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire fii lay xibaar yi jaar yi nderkeppe mbokk téléspectateur Equivox TV ñu leen di jox dig dajee rek ëllëg incha allah nañu ah oui bal bi saf na kii ah oui attention Jackson daanu